dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëy di ñu jàngatal parti Pastef ci élection législative ñu jëm yéen a ñu xamal ne ci waxin parti Pastef am na beneen jamaale bu dul opposition bi ndax mbënd maa ngi fi doon jafe-jafe gu askan wi di dund ñàkkum xëy gaa ngi fi lim bu takku ci ay ndaw di ko dund dem sax bay jël gaaluloo coy ngir amee jikoom ca bitim réew immigration clandestine gaa ngi fi tey la gën a bëri dund gu cher gaa ngi fi jural jafe-jafe wi boole ci ndool ak ñàkk gu metti goo xamante ne moom la waa kaw gi di dund tax Walf Quotidien gis ne yile la parti Pastef nar a janool ci élection législative yi ñuy jëm yéenekaay bi di Tribune ne ci yooyu la wote opposition bi maanaam ku jéeg politique bi soobu na ci wàccaay gi démb jot nañoo taxawal bees ab kuréel gañu duppee alliance pour la transparence des élections yéenekaay bi ne lu toll ci téeméer ak fukk ci ay parti mouvement ñoo ko seq la tax a jóg mooy ngir yoonal am ci yi la wote maanaam élection yi ñu amal ko ci lu wérte wóor njuuj njaaj bañ cee am atal ne nañ ci jiital waxtaan balaa ne ca place de la nation leneen lu yéene kaabi réew mi quotidien fësal bokk na ci jëwriñ gi ñu denk wàllu kaaraange bii réew mi mi am yéene fas yéene daje ak acteur politique yi niki samedi gi ñu jëm ngir waxtaane lu jëm ci élection législative yi yéene kaabi di yor yor gi xëy duñu xam lekk ngañ Demba Touré bokk ci ndawu patriote yi waxtaan gu yaatu la seq ak taskatu xibaar yi démb yekk na lu mel ni xemee ku jég politique bi xamal leen du pression mooy mi leneen dal na ci Bougane Gueye Dany mi mu ne ana alalam ga mu yoroon te lu mat a saytu la lam ca teg mooy Bougane Gueye Dany ak parti ga jiite di sa bopp daanaka amuñu bilan ci wàllu politique la koy firndeel mooy la ñu dund ci élection yu 2022 Ngagne Demba Touré daal fàttali ne lii di jub ak jubanti moom la gaay di bañ waaye nañu xam ne nguurug Bassirou Diomaye Faye dina ci dem ba jeex tàkk yéenekaay bi di ñu xibaar ne ñaxtu ku jéeg bi jeexagul te daañ Sall ak ay ñoñam gis ne mbir yi na muy demee dalul xel Pape Djibril Fall ma yor seen kàddu daal di fàttali ne li ko dalee 1993 ba tey guléet la Sénégal di soobu ci élection te waxtaan amul ci processus électoral bi jot nañoo fàttali ne parti au pouvoir amul sañ-sañ moom dong organiser ab élection te wootewul waxtaan bi le kuréel di atel xam le ne leeraange la ñu soxla ci yile wote yéen a bi di l'info opposition bi jóg nañu boolewaat nañu seen doole def nañu ab say ci kuréel gu ñu duppee alliance pour la transparence des élections rawatina élection législative gi ñu jublu nee yoon yoon ne duñu seetaan mukk nguur gi di salfañe processus électoral bi Khalifa Sall ak ay ñoñam gis ne nguur Bassirou Diomaye Faye dañoo jóg ngir noot démocratie yéena kaa bi mandaane na lépp leer ndax ku jéeg politique bi bëggu ñoo lëndëm ci élection yi ñuy jëm jot nañ ko leeral démb ci seen janook taskatu xibaar yi yéena kaa bi ne ci googuléb ndaje lu toll ci téeméer ak fukk ak ñett ci ay kàngamu politique ñoo ko seqoon kenn ku ne ci ñoom bëgg élection yi aw ci yoon yéena kaa di las ne googule kuréel di atel joxante nañu dig daje ñaar fukk fan ak juróom-ñaar ci weeru la wàccaay élection législative yi ñu jëm yéen a kaabi di direct news xëy dalal taskatu xibaar bi di Adama Gaye wax na li tax mu kalaame nguurug Sénégal ci yoon ay kàddoom ci biir yéen a kaabi Adama Gaye jot naa fàttali maanaam la mu jotoon a dund ca nguurug Macky Sall ga woon ma ko yóbbu woon kaso jot na faa dund lu tolloog juróom fukki fan ak ñett laata muy génn ndungu siin ñaar fukki fan ci weeru septembre 2019 Adama Gaye gis ne dañ ba yóbbu ko kaso ci anam yu déppool ak mu fas yéene kalaame fu mbaxana doone benn état bu Sénégal yéen a kaabi di bés bi la journée ci bés yi ñu jëm dañu soobu ci ubbiteb l'école école ba tax na lu jëm ci wàccaay gi premier ministre Ousmane Sonko jot na ci amal ndaje mu yaatu waaye bamtuwaat na ay kàddoom ne lu jëm ci wàllu muuraay ci école yi Ousmane Sonko ne buñ ci dàq benn élève daal di ci jëwr ngi ñu denk wàllu njàng njàngale mi ne gën ngaa sori fileek ñaar fukk ak juróom-ñaar ci septembre gi ñu ne nañu fexe ba jël ci ay dogal maanaam arrêté goo xamante ne day tënk règlement intérieuru école yi ak constitution xibaar ne Njaasaan jot naa dalal démb njiitu réew mi Basiru Jomaay Fay jot nañ ko ñaanal rafetlu doxalinam ay kàddoom ci Le Soleil moom njiitu réew mi sàkku na ñaan ci kilifa diine yi dal fàttali ne nguur gi teg na fi ab kuréel gu bees goo xamante ne moo bëgg di dox ci diggante état ak këru diine yi kañ ko dënk di docteur Jim Dramé bu IFAN doon ko xamante ne laalewul ci politique tax njiitu réew mi Basiru Jomaay Fay sàkku ci kilifa diine yi ngir ñu jàppale ko a bi di source ma ca Tuuba ne am na keneen ku fa ñàkkaat bakkanam moo di ab xale gu toll ci bi ñu fàttali ne ab miir moo daan woon ci kawam ca quartier Guédé ba mu jëlee ci ay gaañu-gaañu yu méttee métti ca lañ ko fab yóbbu ko hôpital waaye laata ñu yegg ca la bakkanam rot